donc euh, di wax rek ne situation bi nii c'est déplorable à tous les niveaux parce que le président Sonko ci moom ci boppam njabootam du dem école gis ngeen ni ñu ko fi defoon caméra yaa ngi fi doomam war a génn jàngi mënul dem jàngi ji donc di wax ne li li Sénégalais di li Sénégalais di di di dund moom lay dund bu mu waree dem juma mënul dem jumaa gis nañ ko ñu ñëpp teg ci seen bët donc loolu benn parenthèse la woon rek bu ma ne naa ko ci def di wax ne le président Sonko encore une fois Euh, parfois euh, dafa am ñoo xamante ne yaakaar naa dañuy xaw a amnésique tuuti euh, par rapport ak taxawaay bi muy taxaw en tant que jàmm Sénégal dañuy fàttali ne le droit à la résistance c'est un droit que la constitution sénégalaise lui octroie loolu benn mbir la donc tey wootewul benn acte wala benn pas buy jëm ci ne kii il est violent déedéet gis nañu sorti bu mu def keroog mais lan la wax personnellement amul benn rancœur amul benn rancune amul benn rancœur amul benn rancune ci président Ousmane ci ci ci Macky Sall ne bu toogee ne bu toogee ne bu toogee yow mi doon wax sànq fragiliser les ne bu toogee dina bàyyi yoon def liggéeyam ci Macky Sall mais moom amul benn xaar ma yàlla ak Macky ah, Sall je pense que ni loolu loolu loolu ça ne me rend pas loolu ça ne manifeste pas seulement la grandeur de l'homme la grandeur de l'homme mais le sens de la responsabilité vis-à-vis des institutions force de défense dama koy waxaat je le répète Pastef ñun xam nañ bu baax la notion de république xam nañ ko bu baax a baax xam nañ ni cëslaayu république ce sont les institutions gis nga armée bi ak gendarmerie bi ak yeneen ak yeneen ak justice bi yow mii am nga ñoo ci xam man mii am naa ku ma ci xam ñoo xamante ne avant ne ñoo ñu gën a jub ñoo ñu gën a dëgg donc ci côté boobu aussi il faut que nit ñi comprendre yenn nit ñi yenn nit ñi benn soble bu yàqoo wala benn pomme de terre mën na yàq tout un sac